ñu wax ci Viviane Chidid Ndour mi nga xam ne depuis que mu divorcé ak Bouba Ndour euh, dañu naan guleet mu toog euh, ci ab entretien boo xam ne jot na kaa am ak Boubacar Diallo ngir daal di ci wax ak dundinam euh, ca bu mu nekkee ci ab sëy am digganteem ak Bouba Ndour mi nga xam ne moom ñoom ñaar sëy nañu ay at yoo xam ne rek moom mu jot kaa jural ñaari bant li taxoon ci joojule jamono amul woon problème ci lu jëm ci wàllum liggéeyam moom moo di Bouba Ndour comprendre woon na ko te ci métier mi la nekkoon waaye itam ñaari doom nga xam ne jotoon na kaa Thiam ak Bouba Ndour ay goroom ak ñi xam ne ñoom ñoo di ay njëkkeem ñoo ko doon teel yooyu lay xale ba tax mësu ci am benn jafe-jafe rek ngir wéyal li nga xam ne moom moo di carrière waaye beneen laaj boo xam ne kaar Diallo laaj na ko ko ginnaaw bu mu divorcé ak Bouba Ndour gis nañ ko muy woy ay woy ci jëm mel ni woy yu mbëggeel trahison ak yu ni mel ndax daf ko daf daf koo dund wala amaana kale xew moo ko metti ba muy woy woy yooyu mu tegal ko ci neko ko du muy euh, joytu wala muy wax li nga xam ne moom moo di euh, vie privée lu dul ni ko rek dafa doon loo xam ne euh, liggéeyam la ab chef d'entreprise la dafa war a nekk femme forte courageuse ba noppi war a mën a taxaw taxawaay boo xam ne rek ku ko seen naw ko respecté ko waaye li nga xam ne moom moo di liggéeyam am na ci bu baax a baax ñoo xam ne ñoo ko jàppale soutenir ko tey ba mu agsi